الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوغي لين دي نيو دي لين گرم ci deglu di ñaan yàlla mu defal nu ak dégg ak ak topp ak ak jariñu ci lépp lu ñu ci jàngate ci siira yonente bi salallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni bis yi ñu weesu ñu ngi waxtaane woon dem gi yonente bi salallahu alayhi wa sallam demoon taif ngir di sàkku ci ñoom ñu wuy si wooteem bii ko yàlla yónni te mooy diine islam waxoon nañ leen fa mu mujj ci ay coono ndax dafa dem lan doon yaakaar ci ak wuyu mu mel ni gisu ci dara ndax dañoo mel ni seen mbokk yi ci màkka ni ñu ko weddee ak ni ñu gàntale wate bi rek ñoom taif xeetu gàntal googu lañu gàntal ba àgg ci sax def lool mën naa am waa màkka metti woon nañ ay mbir waaye àgguñ ci woon ndax àgg nañ ci yabal xale yi ak jigéen ñi di ko yooxoo ak sànni ay xeer ba mu wax ñaan googu yi mu mujj a tudd bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ci ñaan googu yi mi ngi dem bi mu jógee ci mbooloo mu ko toppoon di ko sànni ay xeer ak yoxoo mi ngi toog ci peggu ay tool yooyu ñaari xale yu ñuy wax Utba ak Shayba ñoo ko moom ñaari doomi ku ñuy wax Rabia lañu bi mu toogee foofu ci seen wet tool boobu ñu am ci moom yërmaande daal di woo seen benn xale xale nasaraani yu ñu daan ko wax addas ñu woo ko ni ko jëlal wattal fii ci tàndarma ci raisin ji dem ca waajoojee toog te booba yonente bi lañ jublu dañ ko seen coono yooyu mu daj ba agsi foofu toog di noppalu ñu am ci moom yërmaande daal di wax seen xale bo ni ko wattal foofu dara ci raisin dem yët ko waajale toog te booba ñu ngi ci jublu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nee na ba mu ñëwee ba teg raisin ji ci kanamam ne ko jëfandikul fii yonente bi daal di ni bismillah seen xale boobu ñuy wax haddas daal ni ko li ngay wax de waa dëkk bi xamuñ ko du du waxi waa dëkk bi yonente bi ni ko ana yow foo bàyyi ko ana foo dëkk yow ak lan mooy sa diine ci dan yan diine nga bokk mu ne ko man ab nasraani ju laa ci diine nasraan laa bokk maa ngi dëkk ci dëkk bu ñuy wax nin waa nee na yonente bi ne ko kon yow yaa ngi dëkk ci dëkkub waaju baax muy yunus ibnu matta kooka ni ko waaw ana ku la xamal yunus yonente bi ni ko kooku sama mbokk la ndax ab yonente la woon te may itam ab yonente la bu mu ko waxee loolu li daal du koy jàngal aslëf ci alquran ci li yàlla nettalee xisab yunus xisab bi yàlla nettali ci mbirum yunus yonente bi jàngal ko ay yooyu waaye addas bi mu déggee loolu rek la daal di jébbalu daal di këpp ci kaw yonente bi di fóon bopp bi yonente bi ak di fóon ñaari loxo ngir li mu jàng dugg gum ko dugg ba mu delloo ci ñaar ñooñu ko yenoon muy Utba ak Shayba Addas ba mu leen ba mu agsee ci ñoom ñu ne ko tuskari ñal la ana lu tax nga ngay fóon bopp waa ji ak ñaari loxom Addas ni ko yow sama sang bi jàpp naa ne kaw suuf si di ku gën waa ji néew fi ndax wax na ma mbir moo xam ni ku dul ab yonent xamu ko mu ne wax na ma mbir moo xam ni ku dul ab yonent xamu ko loolu mooy mujjug taif kon ñu dugg ci tasaaroo gi wooteeb islam tasaaroo ci lenn ci nit ñi danañ waxtaane it al isra wal mi'raj rañaan gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam rañaanoon dem baytul maqdis ak yéeg gi dem juróom-ñaari basman ak nag ni islam tàmbulee ca yasriba te mooy madina ak ni waa lenn ci waa madina ñëwee ci ñëwee màkka mu waxtaan ak ñoom bañ dugg ci ni islam yooyu yëpp dinañ ko jàngat ci tomb yi ñu bëgg a wax kon islam nan la duggee ci way néew doole yi mënees na ni njëlbeenug islam ñi ëpp ci ñi duggoon kuréel yu yu ñàkk yi te néew doole ñoo ñoo ci jëkk dugg ñi nga xamante ne ñu ñàkk lañ te amuñu woon doole ñoo jëkk a dugg ci diine islam dëgg la sax am na ñooñ ay kilifa lañu woon par benn benn ci kilifa duggoon na waaye nag la ëppoon ci ñi duggoon jamono boobu rek njëlbeen gi daal ay mustadafon lañ te mooy ñi nga xamante ne dañu néew doole waaye ñoom ñëpp nag islam daf leen di nangu daf leen di recevoir yonente bi diine islam digal ko mu wóof leen di leen aar di leen jàngal li nga xam ne moom la yàlla wàccee ci moom ci alquran muy doxeeg ñoom noonu ba tax na yonente bi saa bu masaan toog ci jàkka ji ñoom ñoo ñii ñu néew doole ñi ci ay àndandoom ñooy ñëw wër ko ku mel ni Suhayb ar-Rumi ak Ammar ibnu Yasir ak Bilal Salman al-Farisi ak Xabaab ibnu al-Arat ak ñeneen ci way néew doole yu jullit yi ak ñi ñàkkoon alal waaye bu ñu masaan toog wër yonente bi noonu bu ko bu leen sharifi Quraysh yi seen yi kilifay Quraysh yi dañ naan dañ naan dañ naan xanaa du ñii ñu ñu ñu ñu fuqaraaw yi nga xam ne amuñ dara ñoom la yàlla defal ak ngëm ñu gëm ko bàyyi nu xanaa bëggul ñu roy ci ñi xanaa xanaa bëggul din woo ñuy roy ci ginnaaw ñi nga xamante ne tekkiwuñ dara léegi ay doxandeem lañ ak i ak i ak i ak i fuqaraaw yi amul dara. àgg nañ sax ci ni yonente bi da nga leen di dàq ñi nga xamante ne ñoo la encadré te doon ay fuqaraaw doon ñu néew doole da nga leen di dàq boo bëgg ñu gëm la waaye ñun mënuñoo ñëw di topp ci ginnaaw ñi. loolu àgg nañ ci ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay wax moo tax ayab alquran wàcc ni ko wala tatrud alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashiyi yuriduna wajha ma alayka min xisabihim min shay وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين li maanaam mooy mu ne ko yow Muhammad mu làq mukk way néew doole yooyu way néew doole yooyu nga xam ni dañoo nekk fi yow di tudd yàlla di ñaan yàlla ci suba yi ak ci ngoon yi bu leen dàq mukk bul gestu mukk it war yi ak pexe yi nga xamante ne moom la la kilifa yi màkk yi di fexeel di di ko fexe ci kaw ñun ñi nga xamante ne dañoo néew doole bul gestu ñooñu mukk ceetu ndax ñooñu kenn du la laaj seen i jëf ca kanam yàlla ñoom itam kenn du leen laaj li ngay def ca kanam yàlla ba tax nga di leen dàq te boo leen dàqee nag da nga toj loolu mooy maanaam aaya boobu kon islaam dafa yamale mbooleem xeeti kuréel yi ràññiku gi am ci diggante borom alal yi ak kilifa yi ak ñu néew doole ñi ak surga si loolu islaam jàpp ci dara genn tàqale islaam doxalewu seen diggante islaam xameewul diggante surga bi ak sang bi xamewul diggante ki woomal ak ki ñàkk ñoom ñëpp la ñuy gënante ci kanamu islaam mooy ak ngëm ak ragal yàlla ak jëf gu yiw islaam ci ñett yooyu lay la nit di gënante fi moom ak ngëm ak ragal yàlla ak jëf ju yiw waaye nag yëg-yëg bi kilifay Xuraysin amoon ci yëg ak rëy ci seen bopp ak bëggu kilifteef ak bëgg daraja moo dox seen diggante ak wuyu wooteeg islam boobu walid ibnul muxira ca kilifa yi la bokkoon daana wax ni waaw xanaa bu ñuy wàccee alxuraan duñ ko wàccee ci muhammad mii nga xam ne ab yatte jërim la di ak faqir di ma bàyyi te man maay kilifa màkka xanaa bu ñuy wàccee duñ wàccee ci muhammad mii nga xam ne ak faqir la di ab jërim bàyyi abu mas'ud amr ibn humayr as-saqafi te mooy kilifa xabilatu saqif ñun ñaay ñun ñaar ñooy ñaari kilifa yi ñaari dëkk yi muy Makka ak Taif wax jooju mu daan wax di wax ne loolu mënta nekk yàlla bu xasee bay wàccee du du nu fi bàyyi ñun ñaari kilifa yi di ko wàccee ci Muhammad mi nga xamante ne ak faqir la ci la yàlla wàccee ayab alquran yi wa qaalu lawla nuzila hada alquran ala rajulin min alqaryatayn azimin ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna baynahum maishatahum fi lxayati dunya ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون li maanaam mooy yéefar yi dañuy wax ni tooñu woon a wàcce alquran ji ci kenn ci ñaari kilifa yi kilifa yi ñaari dëkk yi muy Makka ak Taif ndax Muhammad ak faqir la ab jënd bokkul ci kilifa yi bokkul ci borom doole yi waaw bokk ci wanit nag jëkk na boo gi di ñëw loolu ñooñu la yàlla di tontu ñu waaw ndax ñoom ñooy séddale yërmande yàlla ba tax ñu naan fii la ko war a def ak faa la ko war a def ndax ñoom yërmande yàlla ñoom ñoo ko yor di ko séddale ba tax ñooy seet ku leen neex ñu def ko fa seet ku leen neex ñu xañ ko fa déedéet yàlla mooy séddale boppam di seet ku ko neex mu jox ko di seet ku ko neex mu xañ ko ko yàlla moo séddale wërsëg yi ci dundub àdduna mooy ki nga xamante ni moo def wëleer yi ak daraja yi mu rawante ëppante fii ci dundub àdduna am na ñoo xam ne yàlla moo leen def ñu doon surga su war di toppe moo def moom yàlla moo sàkk ay nit def leen ñu doon kilifa yu ñu war a topp yàlla moo def attekat bi atte moo ko sàkk kañ war a atte yi yàlla ko sàkk kon daal di daane la aaya bi ci ni wa rahmatu rabbika xayrum mimma yajmaun muy wax ju yéeme yoo xam ni ak lépp dafa delloo nit ki ci mu sellal digganteem ak boroomam ci wàllu tawxiid delloo lépp ci loxoom ba xam ni lii am yàllaa koy amal waaye du ci ay pexe am na beneen xew-xew boo xam ne dana feeñal ñeewante gi islaam am ak ittewoo gim ittewoo way néew doole yi ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa toog ak kilifa yi xuraysin di leen xëcc ci islaam di leen woo bi mu toogee di wax ak ñoom ba am ci ñoom yaakaar ngir am nañ ak ubbi ku guñ wane goo xam ni dawuñ ko wane lu jiitu loolu abdullahi ibnu ummi maktum daal di ñëw ba mu ñëwee te fekk ne moom jëblu woon na jiitu lii yonente bi ittewoo lool kilifa yooyu muy waxal wéttiliku ngir yëg gum yëg jeng wàcc guñ tàmbale wàcc ak wéttalikoo gu ñuy wéttalikoo li mu leen di wax tax na mu am ci ñoom yaakaar ba am xelim tef ni xaj na danañ jablu abdullah ibn ummi maktum moomu ñëw ni ko yow yonente bi yàlla bi dama bëgg nga xamal ma li la yàlla xamal ci li la yàlla xamal nga xamal ma ci waaye bi mu bari lee wax ji loolu diis ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni am na ak cibeel gum sib ci dagg gi kooku di dagg ay waxam tey ragal na ne bu ko gestoo di wax ak moom mën naa yàq lii mu doon def ci ñi mu doon convaincre jàpp na dañ dugg si ci kilifa yi xuraysin yi mu daal di feeñ feeñal lool ak ñëkk ci kanamam daal di koy wan gannaaw du mooyu ko ba ba nanguutu si déglu kooku ba kooku la kooka di wax waaye loolu yàlla wàccee ci aaye bopp ak yeddeel lañ ko mën a tuddee ne abasa wa tawalla an jaahu al ama wa ma yudrika laallahu yazakka aw yazakkaru fatanfaahu dikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma alayka la yazakka wa amma man jaaka yasa wa huwa yaxsha fa anta anhu talaha loolu mu lii maanaam mooy yonent bi ñëkkal na kanamam du mooyu ngir li ko gumba gi dikkal mu ne ko waaw ana ana loo xam ci mbirum gumba gi ana ku la ci xamal dara ndax mën naa am moom dana laab ci ay bàkkaar dana waaroo ci yow ba li ngay wax dana ko dégg dana ci am njariñ waaye kii nga xam ne moom am koomam doy na ko ñii nga xamante ni seenum koom doy na leen daanaka soxlawuñu dara ci li ngay wax doyloo nañ seenum koom ak seen daraja ba nanguwuñ laa gëm nanguwuñoo déglu it waaraate yi ngay waaraate nga jëm ci ñoom ittewoo leen ba tax ngay wan gannaaw gumba gee te mën naa am kële moo gën a mën a jariñu ci woote bi yàlla fii te ñi ngay xëcc it mën naa am benn njariñ li ngay wax du leen ko jariñ te it seenu ñàkk a gëm ak seenu ñàkk a dugg ci diine yàlla topp la ko yàlla tegu la ko dalaa woote la rek kon ka gëm rek moo war a doon sa mbokk moom nga war a jàng jëm ci moom waaye waroo jàng jëm ci ka nga xam ne dangaa gis ci moom xaj na dara ci mbàdd daan ni ko nag jublu gi nga jublu ci ñii nga xamante ni mën naa am li ngay wax lépp du leen jariñ dara di du mooyu ñi nga xam ne dañoo ñëw di la yàkkawle ko soxla ci yow xam-xam akum njub lu mel ni gumba gi loolu dafa mel ne aw yeddeel la boo xam ne yàlla moo ko yedd mu bokk ci tegtal yi ñuy gën a tegtaloo ci ne lii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam andi ak wax yu la bu jóge ci yàlla waaye lii ko borom tuuma yi tuumaal jàpp ni léegi ay xalaati boppam la ak moo créer alxuraan ci xalaatu boppam léegi bu fekkoon ne xalaatu boppam la lu mel ni du am maanaam du du am benn problème bu ñëw dara jóge ci kaw ñëw di ko yàdd ci kanam ñëpp kon yeddeel ko yi nga xamante ne danañ ko gis léegi ci benn benn ci ay alxuraan yi dalil la bu leer ci ni lii ak wax yi la gu jóge ci yàlla waaye yoonam nekk ci moom yonent bi sax wax nañ ni gannaaw bi loolu yi jàllee saa bu yonent bi seenee Abdullahi ibnu ummi maktum muy ñëw day wax ni marhaban bi man aatabani bihi rabbi maa ngi yaatal marhaban ak yaatal ci kii nga xam ni moo ci ci sababam la ma sama borom yedd nga xam ne loolu kon Abdullah ibn Umm Maktum am na na ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàppewaat ginnaaw bi ci ak fonkeel ndax moom yàlla yedd na ko ngir moom ngir ko naan marhaban ci kii nga xamante ni yàlla yedd na ma ngir moom ba bi yonente bi génnee sax di xare ji waxat Abdullah ibn Umm Maktum moomu la digal muy jiite julli di julli moom mu nekk ci jàkka ji di jiite julli taxaw taxawaayam kon loolu danañ ci gisee bu baax a baax ni islaam la muy jàppe nit ki du ab am am du daraja waaye jëmmi ak ngëm gi nekk ci yow akuk ragal yàlla akuk fas yéene jëfandikoo li mu lay woo moom foofu lay teg ak yëkkateem nit ak wàcceem nit foofu ci ci foofu la ko teg ci woyofal ko woyofal la kon loolu ci ñu ngi jëm ci wàllu ñu doon dugg ci islam ci mustadafon yi ci jamono yii nag la ab xew-xew bu mag am boo xam ne lu rëy la ci diine islam muy al israa wal mi'raj muy rañaan gi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam rañaanoon dem ba baytul maqdis jógee fa dem juróom-ñaar gasamaan ñu jox ko julli juróom waaye lu lépp dafa mel ni yàlla daf ko def ngir nattu ngëmug ñi ngëm ak bëgg woon yonente bi lenn ci ay kiimaan yu mag yee mag a mag ci biir rañaan kooku ndax guddi la ko yàlla jële ci masjidul haram ci mag yóbbu ko ca masjidul aqsa ca Quds mu lay wax ne subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-samiu al basir bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam eggee baytul maqdis ci diir bu gàtt bu gaaw ci guddi googu fekk na fa sayidna ibrahim fekk fa sayidna musa ak sayidna isa ñu ànd ak meneen mbooloo ci ay yonent moom yonent bi mu jiite leen fa ak julli ba mu leen di jiitee julli gi wax na ni indil nañ ko ñaari pot wala ñaari ndab yoo xam ni pot yoo xam ne benn bi sàngara moo ci nekk ba ca des soow moo ca nekk bi ñu indee ñaari ndab yooyu mu jël ba def soow ma naan ci bàyyi fa ba def sàngara sa jibril ni ko mayees na la ak njub mayees na ko saw xeet aramal aramal nañ ci yee nit sàngara ndax bu fekkoon ni jël nga sàngara si bootul danañ bew waaye nag bàyyi gi ko fi bàyyi jël soow mi jëfandikoo bi gis nañ ni ak njub da nga ko am saw xeet danañ am ak njub te sàngara yi day daal di araam ci yéen foofu ci baytul maqdis la yonente bi toxoo jëm asamaan muy li ñu tuddee al mi'raj kon al isra buñ ko waxee mooy jóge gëm jóge màkka dem baytul maqdis yéeg gëm yéege baytul maqdis dem ba juróom-ñaar bi asamaan ila sidratul muntaha kon loolu la ñuy tuddee al mi'raj foofee la ñu farataale ci moom yonente bi ak ci aw xeetam julli yi juróom juróomi julli ci bis bi ak ci guddi gi mu daal di dellu si màkka loolu lépp nag ci genn guddi la bi bët setee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko nit ñi leeral leen li mu gis am lenn ci nit yi Quraysh ñi ñu ñu ko dëggal ni wax na dëgg ñeneen ña ca des weddi am na sax ci nit ñi gëmoon ñoo xam ni ñi nga xam ne seenu ngëm dëgërutoon ci xibaar boobu ci lañu doxee ba fara murtat ni nag léegi doon nañu ko gëm waaye lii mu wax ni jóge na fi ci genn guddi gi dem baytal maqdis jóge fa dem juróom-ñaari bi asmaan nag day bëgg a xaabaabal nag léegi ñu waxee loolu lañ ne kii mi ngi bëgg a xaabaabal danañ ko gëm waaye léegi génn nañ léegi am na ñu doxee foofu murtat am ay gaay yu dem ci Abu Bakar laaj ko xalaatam mu ni leen lu gën a sori loolu danaa ko ci dëggal mu ni leen lu gën a sori loolu sax bu ko waxoon ma dëggal ko loolu mu waral ñu tuddee ko siddiq moom abubakar yéefar yi xibaar bi mu siiwee ñu jóg ni nañ ko nattu nañ ko testé daal seet ba xam dañ ko laaj ay mbir lañ koy laaj mooy baytul maqdis gi mu wax ne dem na fa ci guddi gi jóge fa dem juróom-ñaari ba asama juróom baytul maqdis moom am na fi ñoo xamante ne xam nañ baytul maqdis nañ ko laaj na wax na mel ndax moom xam nañ li ma si génn xam nañ li ma si génn bu fekkee ne nag léegi li muy war lu wér la léegi na wax ni mel rek kon loolu mooy test bi nga xam ni yéefar yi doon nañ ko test yonent bi sans waaye da leen ko melal baytul maqdis béréb par béréb fu ci ne na mel ak la fa nekk bayiwul dara ba mel ni dafa jàkkaarloo moom di ko gis ñu daal ne ah mu ni wax ni dëgg de léegi ñu sàkku ci moom ni ko léegi dañoo am ay gileem yoo xam ne dañoo génnoon di commerce yi war a jógee demoon Syrie di fa wuti marchandise war a ñëw mu wax leen li mu gileem ni leen bis sàngam lay agsi fii bi jant bi fenk gileem gu mel nangam koo xamante ni ci diggante weex ak ñuul mooy nekk seen kanam mooy jiitu bu ñu agsi ñu toog di xaar waaye bi gileem yi ñëwee noonu yi ma ko waxee woon rek noonu la demee waaye nag dolliku wuñ dara nag lu weesu ak weddi ak ndëngte kon loolu danañ ci xamee ni ak ngëm moom day mbirum yàlla moom mooy seet ku ko neex mu defal ko ko waaye tegtal ba gën a rëy ci tegtal yi nit mën na ko am te du tax mu gëm islaam nan la duggee ci waa Madina maanaam Yasrib ba lañ ko daan wax jamono boobu yonent bi nag bi mu xoolee nekk ci biir Màkka di woote woote woote ba son gis ni Xuraysin wuy si wuñu ab woote ñu néew ñoo ko ci gëm mu mujj di def saa bu aj gi jotee ba arab yi daje si fi jóge ci gox yu baree bari mu dem di leen gàttandu ji di leen leeral woote bi ko yàlla yónni muy def giir par giir giir gum àgg wax ak ñoom ci loolu am na ñoo xam ni bu waxee ak ñoom tontu lu ñaaw lañ koy tontu am ñoo xam ni donte gëmuñ lim leen di wooyit danañ ko tontu tontu bu rafet boo mënee si dëkk bokk na ci ñi yonent bi gaaraloon diine islaam menn mbooloo mbooloo mu bàyyi ko woon Yasriba ba mu dajeeg ñoom da leen laaj ni leen yéen yéenay ñan ñu ne ko ñun de am mbooloo lañ mu bàyyi ko bokk ci xasraj mun leen du yéen yéenay ñi féeteeg yahud yi ñu ni ko waaw mu ni leen ndax du ngeen toog ma wax ak yéen ñu ko ankay ñu daal di toog mu woo leen ci yàlla daal di leen di gaaral islaam daal di leen di jàngal aslaf ci alquran bi yonente bi wax ak ñoom ba noppi ñenn ci ñoom wax ña ca des ni leen eh wallahi kii nii mooy yonente bi nu yahud yi doon teg ko fekk ni yonente yi fekk ni yahud yi dañ daan wax ak ñoom foofee ca Madina naan leen am na yonente bu yàlla di yónni ci mujjub jamono te jamonoom teew na jamono bi ñu toll bu ñë bu ñëwee danañ ànd ak moom ànd ak moom xeex ak yéen rey leen rey gu mel ni ga gañ reyoon xaat rey gu rey gu ñaaw danañ leen ko rey léegi nag bi mu waxee ak ñoom jàngal leen alxuraan ñu daan ne eh di ngeen waay kii de mooy kenn yahud yi di tëkkoo fee ci Madina nañ gaaw jiitu leen ci balaa dara ndax ñoom ñëpp a jeex ñun ñëpp a jeex kon ñooñu tawfeex jooju la leen yàlla defal ñu gaaw jëkkante ak yahud yi ba jëkk leen a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daat koy wuyu ci lam leen di wax daat koy dëggal nangul ko lam leen wax ñu ne ko ñun dañoo bàyyi mbooloo ca suñ gannaaw moo xam ne day la dox seen digg la dox ci seen biir ci diggante ci ak noonu ak ko ay mësta am diggante nit ak nit te yaakaar nañ ni yow mii boo fa ñëwee yàlla mën na leen a dëppalewaat ci sa jëm yàlla mën na leen a boole ci sa jëm loolu yaakaar nañ ko ci yow léegi nag ñun danañ fa dem buñ demee ci ñoom it danañ leen woo ci sa mbir mii nga woo danañ leen leeral lii nga xamante ni woo nga nu ci nu wuyu la ci ci diine ju yees ji nga wax. liñ xam te mooy boo fexee ba yàlla boole boole mbooloo moomee ci yow de ku la fay gën a tedd dootu amati ceeb kon ku ku ku fa réy réy ngay na ndax jafe-jafe bari na te dëngoo gërëm ñoom ñooñu nag. muy ñooñu bokk ci xasraj te nangul ko loolu ñu daal di jóge màkk dellu madina daal di wax seen seeni waa kër liñ gis ak liñ dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax leen ko ak diine ji mu leen wax ba mu leen bañ ko leeralee ñu bari ci ñoom dañoo daal di nangu daal di gëm sax njëkk ñuy gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sukkandiku ci waxi seen mbokk yooyu ba benn kër desu fa te du ña nga fay waxtaani mbirum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ca yasri ba ci ginnaaw bu ñooñu ñëwee ba gis yonente ba kon at moomu jàll na at mi ma ca sës nag léegi fukki nit ak ñaar ñu bokk ci yasri ba ñëw aj si aj si màkka bi aj see màkka ñi ngi daje ak yonente bi ci béréb bu ñuy wax al xaqaba foofu lañu jaayante ak moom la ñu jaayante ak moom it mooy fas nañ ñu yéene dootuñu boole yàlla ak dara ci ak jaam fas nañu yéene sàcc danañu ko bàyyi dootuñu ko def fas nañu yéene dootuñu njaaloo rey sunuy doom ci kaw teg ko ci ak jaahil googu jaahil yi arab yi daan defet fas nañ yéen dootuñu ko defete fekk loolu mooy jikko yu ñaaw yi gënoon a siiw ci arab yi ñu ni ko def yonente bi ni muy woo ci ak jaayante ak leen woo ci islam ginnaaw boo gënee dalay woo ci nga jaayante ni duma bokkaal deel teeg yàlla ak dara duma sàcc duma njaaloo duma rey sama doom duma indi aw fen woo xamante ni maa koy keree ci sama kanam mbaa ci sama diggante ñaari tànk loonu digal te mu doon aw yi du ñu la ci mooy léegi yonent bi lii mooy kàddu yi nga xam ne lu ñu doon jaayante ak yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam waaw léegi nag yonent bi ne lii nag ku ko ci jaayante te matal ko nii nga ma ko waxee nga matale ko ni lala ci yàlla faye mooy aljana ku ci def dara nga xam ni wax nga ni doo ko def jaayante nga ak man ba noppi demaat bët def ko say mbir a ngi ci loxol yàlla bu ko neexee mu jéggal la bu ko neexee mu mbugal la loolu la yonente bi daaneele ak ñoom jaayante googu ñu jaayante ak ñoom léegi kon loolu mooy ñaareelu at bi at atum ñetteel ni bi bi bi bi jaayante gi jàllee waa Madina lu mat juróom-ñaar fukki nit ak ñett juróom-ñaar fukki góor ak ñett ak ñaari jigéen ñëw nañu aj ci Makka ñu délégué leen délégation bu bi ñu gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu daalanteeg ñoom war a gisee ñoom ci waxtu wu guddi ca fa ñuy wax alxaqaba ñu leen foofu la ñuy dajawaat waaye nag na doon waxtu wu guddi ñu leen it bu ngeen demee ba war a ñëw it kuy nelaw bu leen ko yee bu leen bu leen fekk kenn muy nelaw ngeen di ko yee na ngeen rocc ko ndànk rek ñëw ci ndànk ndax damay bañ waa xoolee ci di ko dégg te buñ ko yëgee mën ci andi ay jafe-jafe ak yàq-yàq ñu leen kon nañ daje maag yéen ci waxtu wu guddi ca xaqaba yéen juróom-ñaar fukk ñii ak ñaar waaye nag ku nelaw sax bu leen ko yee bu leen yeewu nag léegi ña yeew nañu rocc ko ndànk ñëw ñu daje ñu daje fii ci biir bi noonu la yonente bi waxee ak juróom-ñaar fukk ñooñu ak ñett ñu bañ demee nag ba guddi gi xaaj wala boog sulus bu njëkk bi mu jàllee ñu rocc ko ndànk dem xaqaba dajata ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam boobu mi ngi ànd ak bàyyam bu ndaw bi ñuy wax abbas ibn abdul muttalib te boobu sax gëm ko ci diini xuraysh la bokk waaye nag dafa ànd ak moom ngir mbokk ak xëy na seq bu mu seqoon moom abbas moom mi biñ ñëwee moo wax ak waa madina yooyu waa yasrib yooyu moo wax ak ñoom ne na ngeen xam ni Muhammad mii ngeen di jaayante nag ku am ab cër la fii fi noonu ci sunu giir la bokk aar nañu aar nañu dara tamit ba fii kenn kenn rëyu ko fi kenn tuur tuuru fi dara tamit te te liñ gëm lañ gëm mooy mooy àndiñu moom ci xalaat waaye teewul nag suñu bokk la ñu ngi koy aar loolu nañ ko xam ku am kaaraange la fii ci biiru nitam ci biiru dëkkam léegi nag li mu bëgg mooy jeng jëm ci yéen ak fekk si leen bu fekkee ni lii ngeen di woote da ngeen ko dëggal ci li ngeen woote wax ngeen ne fas ngeen ko yéen a dëggal te da ngeen ko aar ci la ngeen di na ngeen di aare seen bopp ak seen njaboot kon mu ngoog mën na ngeen ko bàyyi waaye bu leen wóoree ne bu ngeen demee da ngeen koy gàcceel mbaa ngeen di ko seetaan bu mu am ay jafe-jafe ginnaaw bu mu ñëwee ci yéen bu ngeen njabooteel ko bàyyi léegi mu bañ fi bàyyi ko ñu ne ko li nga wax dégg nañ ko daal di yonente bi waxal yow ci jënd bopp ñu def waxalal sa ak sa borom li nga bëgg ñu dégg yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax daal di jàngal alquran daal di leen di woo ci yàlla xëyleen lu leen islam daal ni leen nag da ngeen di jaayanteeg man ci dégg ndigal ak topp ko ci jamono bi ngeen di sawar ak bu ngeen tàyyeele ak it dundale muy joxe bu ñu la laajee ngeen joxe ci jamono yomb ak jamono jafe-jafe loolu da ngeen koy jaayanteeg man da ngeen di jaayanteeg man it di digle lu baax ak a tere lu bon da ngeen di jaayanteeg man it di wax ci yàlla di woote jëm ci di ci wax te du ngeen ci ragal yeddeelu ku leen di yedd li lu ngeen di jaayante la fii da ngeen di jaayanteeg ma ne ci ni da ngeen ma dimbale da ngeen ma aar su ma ñëwee ci yéen ni ngeen di aare seen jëmmi bopp ak seen i soxna ak seen i doom bu ngeen ko defee bi aljanna ñeen na leen jant bi lii la wax ak waa yes ba ko ku doon jaayante ak man ñu daal di jaayanteeg moom ci kàddu yooyu yi mu leen wax yonte ni leen da ngeen di génnee ci yéen fukki nit ak ñaar fukki nit ak ñaar ñoo xam ni ñooy taxawee taxawaayu seen nit ñu génnee fukki nit ak ñaar yéen tam daal di wax ñooñu ni leen kon nag yéen fi nekkal seen nit man ma nekkal fi sama nit ni nga xamante ne noonu la xawaari yoon ya nekkale woon ay saa yéen kon noonu ngeen taxaw yéen tam taxawaay ñu daal di dellu Yasrib ba islam daal di fay tasaaroo tasaaroo bu yaatoo yaatoo yaatoo ginnaaw bu mu fa tasaaroo lool nag kon ci foofu yi fii la xalaatu gàddaay daal di tàmbale gàddaay war a dem nag Madina kon gàddaay gi ci lañ bëgg a dugg nii kon leeral ci tuuti kon di jëkk gàddaay gi muy fexe gu yëf yi doon fexe ba ba jeexal dundu bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak ni yonente bi jaari néeg Abubakar kër Abubakar ak ni mucce ak gëstu bi ñu ko doon gëstu ak aar gi ko yàlla aar fegal ko pexe yéefar yi ak ni mu eggee fa ñuy wax xubbaa ak xutba ba mu fa def ak nag nam nekk woon madina kon point yi muy tomb yi buñ ko jàngee kon day mel ni buñ xaajee dund bi yonte bi sama ñaari xaaj ni benn bi marxala makki ya la muy benn marxala bi mooy li mu doon dund ci màkk bi mu juddoo ba ni mu fi toxoo dem madina marxala bi ñaareel bi kon mooy dund gam doon dund ci madina ak nam tàmbale woon kon tomb yi buñ ko jàngee àgg ci dund madina gi kon mën a taxaw foofu beneen lañ kon tomb yi la ci jëkk mooy fexe gi yéefar yi doon fexe ngir nag ne dañoo bëgg jeexal dunduk yonte bi sama sax ginnaaw bu islaam tasaaroo ci Yasriba yonent bi dafa daldi woo julliti Màkka ni leen kon kaay leen nag gàddaay dem foofee ci seen mbokk jullit yee ndax booba lor ci dolliku na lool ci ñun ñu di leen bun lu xataal di leen mitital bi mu leen digalee loolu ñu mujj di rocciku ndànk par ndànk ak di rocciku yi saa pare mbooloo la ñu doon di dem di dem Yasriba ba bu ñu rocc ko it dañ koy ñu rocc ko ndànk ci nëbbatu yi ngir ragal xuree seen di leen tere ndax bu ñu génnee ci digg bëccëg ni ñu ngi dem mën naa am sax ñu ah ñu dox seen diggante dem ko noonu lañ def ba ñu néew ñoo des ci Màkka ñu baree bari ci ñi gëmoon jiitu jëm ci ñu Madina yonente bi moom ginnaaw bu mbooloo moom yi gàddaayee ba dem moom mu des Màkka di déglu ndigalu yàlla ci wàllu gàddaay yàlla woon ko digal ko ak ñaan gummu yi ñaane ni ko waxul rabbi adxil nii mudxala sidqin wa axrij nii muxraja sidqin wajaal lii min ladunka sultaanan nasiran ñaan boobu yi la ko yàlla ilham la ko yàlla wax yu mu daan ko ñaane ci jamono yooyu ay àndandoon gàddaay yi tam amagul ndigalu gàddaay kon màkka ñu néew fa des waaye nag ku fa des rek te gàddaayoo rek danañ la bon waxtaan danañ la tëj daañu la sonal ba mu des Ali ibn Abi Talib ak Abu Bakar daal ñoom ñaar ñooy ñaar ñi nga xam ne ñoom des nañ fa ba noppi sa jafe-jafe yi gàllankoor leen waaye keneen ku fa des gàddaay rek am nga ay jafe-jafe yu bëri bëri bëri Abu Bakar daana waxtaan ak yonente bi lu bari ci bëgg ñu gàddaay di sàkk ci moom gàddaay waaye yonente bi la mu ko daan tontu mooy bul yàkkamti mën naa am yàlla def la nga doon ab àndandoo ko waxee loolu nag Abu Bakar xëy na moon na lool doon àndandoo boobu yonente bi sam di wax xayma cos boobu mu ci am tax na mu jënd ñaari gileem ñaari naag yu dëgër waajal leen ngir buñ leen dëgalee gàddaay ñu mën a war ci ñaari naag yooyu jënd na ko waajal ko teg ko di xaar lool bi xuree suñ demee nag bi gisal seen bopp ni yonente bi am na ay encadrement yu ko jàppale ci yese ba am na it ñu ko fa gëm te it ñi gëm ñi ko gëm ci waa Màkka fekk nañ ñooñee ca yese ba foofu nag lañ xam ni ginnaaw ñëpp dem nañ am na fa ñu ko gëm te ñi ko gëm fii dem nañ fokk rek dem dana dem kon ñoom xam nañ ni fokk kon yonente bi dana leen dabe ñu daje nag ci kër gañ daan diisoo ci daaru nadwa di di di waxtaan nag nu ñu war a def nu ñu war a def ci mbiram am ñu ne dañ koy génne ba ba nit ne génnee leen ko suuf si am ko ne lan ñu rafet bi lan ñu neex bi mu yor bu ngeen ko génnee fu mu dem dana wax bañ topp loolu du xalaat am ko ne dañ koy tëj am ko ne bu ngeen ko tëjee ñii ko gëm danañ dem fekk ko xam nekk ñu dindi ko xalaat bu ñu xalaat rek am ñu ko dindi xalaat bu ñu xalaat am ñu ko dindi ba amoo jaxle ñoom abul xikam lañ ko daan waaye ndax ndax ne ran ni ku jub xalaat ci ñoom waaye yonente bi moo ko tuddee Abu Jahl Abu Jahl ne leen gis naa ne li ngeen di wax lépp di am na benn xalaat bu ma gis te gisagu leen ñu ne ko loo gis mu ne leen gis naa ñu jaar ko ci yoon wax na bu ñu ko ci rayee ñu war a sàkku deretam duñ xam ci kuñ ko kuñ koy sàkku ñu ne ko ni ñuy def mu ne da ngeen di wut da ngeen di wut giir gu ne da ngeen ci tànn benn waxambaane bu dëgër bu amu askan boo xamante ne kuñ xam ne aw askan kenn ku ne jox ko jeesi ju ju mën a dagg ñoom ñëpp ñu fekk ñu bett ndox benn yoon rek tóor ndox benn yoon bu defee bu ñu ko dóorloo benn yoon léegi ba ba ba nu Hachim duñ xam ku ñuy fayoo dara ci fokk moom du duñ xam kenn ku ñuy jéem a lay daal ndax mbooloo ko def ndox bu boobaa diyee rek la ñuy laaj te buñ laajee diyee ñu jox la ñu jox xalaat boobu laaj am ñëpp ñu rafetlu xalaat boobu kon ni kon nañ def noonu ñu tànn nag nga ñu waxambaane kenn ku ñu jox la jeesi ju ju wër di fuglu nag jox ko joxe heure boo xamante ne buñ ca àgg ñun ñëpp dañ koy dóorloo benn yoon waaye yàlla wax yu ko pexe yi nga xam ne yéefar yi fexe nañ ko ci moom li mu ko ko wax yoo daal di koy jox ndigal soxna Aïcha mi ngi nett li ne yonente bi daawul am benn bis bu mu ñëwul kër Abu Bakar benn mu ñëw fi ci suba bi mbaa bu ñëw fi ci ngoon bi ba benn bis ci digg njolloor digg bëccëg ñu gis yonente bi muy ñëw biñ ko séenee muy ñëw Abu Bakar la yonente bi fi heure bi du ko bu doxee waxtu bi rek am na lu am na mbir mbir mu xew kon mu ne yonente bi ci waxtu bii kon dafa mbir mbir xew bi yonente bi accès daal di toog daal di ne ko yàlla digal na ma génn digal na ma gàddaay Abubakar ne ko ndax ndax ndax ndax ñu ànd kon yonente bi ne ko waaw ñu ànd soxna Aysa di melal yëg-yëg bi bàyyam am ci di ko yonente bi waxee ni ko ñu ànd yëg-yëg bi mu ci am soxna Aysa ñu ngi koy melal li wax ni xamoo ne nit dana jooy ngir mbétti ba ba keroog bi bi bi ma gisee Aboubacar bi ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxee ni ko nooy ànd mbétt moom ci am ba mu jooyee ci laa xam ne dana jooy ngir mbétt dafa bég ko jooy ci ànd gi mu war a ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu daal di wax yonente bi ko yow na yow yonente bi yàlla lii de ñaari gileem la yoo xam ne maa ko waajaloon ngir lii ñu daal di luyee benn gidd ku leen di wan yoon ku ñuy wax Abdullahi ibnu Arqat ngir mu mën leen a wan yoonu Madina ndax nii nañu bi ñu demee ba guddi waxambaane xore si yooyu nga xamante ni dañoo waxtaanoon ba daalante ba kenn bu ñu wax ko jox jaasam ñu jox ko ko ñu demee ba guddi ñu taxaw ci buntu kër yonente bi sama sama di ko fuglu ngir bëgg bu nelawee rek ñu darandoo ci kaw benn ñu dóor na ko benn dool boo xamante ne dañ koy rey waaye yonente bi mu gis bi mu leen gisee mu wax Ali ibn Abi Talib ni ko tëddal ci sama kaw lal bi te sàngoo sama sama mbalaanam yi mbalaanam xadra mi ji nii mbalaanam xad mu mu bàyyi ko xadra mawta mu wert mu daan sàngoo mu jox ko Aliou ni ko sàngoo ko te tëdd ci kaw lal bi ni ko ni ko dara looy bañ du accident te te mbu moom mooy mu yonte baaxoon sol di ko nelawe léegi daal di jox ndénkaan li nga xam ne moom la ko waa dëkk bi doon dénk ndax ñun ñëpp dañ ko wóolu woon ba seeni alal ñu daan ko ko dénk tuddeewoon ko Aliou mu yëkkati yëpp jox ko Aliou ni ko na nga toog fii ba mboolem liy ndénkaan yi nga delloo ko doon na fekk si yonente bi daal di génne këram ba mu génnee yàlla ci jëmmi boppam moo téye seen i gis ba gise ko da leen rob dem am demee ba kër Abu Bakar ngir bëgg ñu ànd ñu ñaar dem ñu daal di fay jóge nag bañ fa jógee dem ci mel ni xunt ni ñuy wax waaru sawr ngir nëbb fa bañ demee ca waaru sawr moomu làqtu fa Abu Bakar jëkk muy génn mu wax doomam ji ñuy wax Abdullah ni ko del del dem ci biir dëkk bi di déglu nit ñi li ñuy wax fu ñu toll suñu mbir di ñu fekk ci barab sàngam bi dina ko leer doom bi ñu wax Abdoulaye la digaloon muy dugg ci dëkk bi di déglu xalaat yi nit ñi am ci ñoom ak wax dañ cee wax di di ñëw bu guddee mu ñëw fa leer leen mu digal it xaleem bu ñu daan wax Amir ibnu Fuhayr ni ko del sàmm jur gi ci bëccëg bi waaye ngoon bu jot na nga ñëw fii ci xunti ni ngir andil nu dara ci soow ñu def ni kooku maa yonente bi sa koos mu daal di génne ci benn porox ndollo ci bu nekkoon ci digg kër yi ci benn porox ndollo lañ jaar génn daal di dem moom ci la génn mu Abubakar daal dem mu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di jëm ca xunti ba nii la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mucc ci pexe yi Xuraysin fexe woon ngir rey ko ci mucc googu ci la yàlla wàccee ayat alquran ni wa is yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llahu wallahu xayru makirin aaya boobu yi ci fexe yooyu xuree si doon fexe ci la ko yàlla wàcce bi yonte bi demee moog Abubakar ba nekk ci biir xunti bi nag ñu tàmbalee gëstu waaw bi ñu demee ba fanaan fa demee ba xool dem ba xool gis ni kii du Muhammad Ali la te Ali yan rey ko intéressé wu leen ñor leen woon bañ demee nag ba bët set ñu xam ne kon Muhammad rëcc na ci seen loxo ndekete xoo ki tëddoon ci laaj bi ne la Ali ibn Abi Talib la loolu dafa daal di fàbbi seen xel ñu jaaxle bañ jaaxlee waxtaane ko daal di génnee téeméeri gileem ni képp ku fexe ba indi Muhammad da nga ko indi hayyan aw mayitan téeméeri gileem yi yaa ko ñu génnee ab neexal ni téeméeri gileem yi def nañ ko pour ku indi Muhammad léegi nag ñi amoon xeeneem teefu kado boobu nag daal di jóg tàmbali gëstu ci seet di jigéen ci ñu ko nuñ ca nuñ jotee ci kado boobu di gëstu di yéeg ci kaw doj yi di séentu ba àgg nañ sax ci romb buntu funti moom mi nga xamante ne ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekk mu ko Abubakar ba Abubakar dafa wax yonente bi ne ko ni ko ni ko buñ sëggoon rek danañu seen ku ci ku ci xooloon say say tànk rek da nga gis ndax funti ni tuuti lañ dugg rek làq na waaye nag kaaraange yàlla mu gën a for la mën a tax waaye bu waxee loolu yonente bi yonente bi fu ko tontu ne ko yow Abubakar ana loo jox mu am njàqare lool ak ci tànge loolu feeñ ci jëmmi ci jëmmi Abubakar yonente bi di ko woyafalal njàqare yooyu waaye bi mu ko ko woyafalee Abubakar ne ko wallaahi jàqu ma ci sama dina bopp waaye li may tiit lépp rek mooy gis dara lu may naqari ci yow maanaam gis la ñu lay def ñu lay def lu la naqari loolu yi mooy tiitaanga ji ma am waaye du ci sama dina bopp laa ko kon bëgg na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba àgg ci fàtte jëmmi bopp nee na ko tiitaanga ji may teel tiituma sama jëmmi bopp waaye gis ñu lay def ñu lay def dara lu lu lu tegul ci yow loolu moom naqari waaye yonente bi tontu ko ne ko laa taxaf inna allaha maana ne ko bul ragal ndax yàlla nun la àlla ci loolu yi la alquran waxee ni illa tansuruhu faqad nasarahu llah is axrajahu alladina kafaru thaniya ithnayn is huma fi lgaar is yaqulu li saaxibihi la tahzan inna allaha maana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa jaala kalimata alladina kafaru sufla wa kalimatu llahi hiya alulya wallahu azizun hakim yonente bi moog Abubakar sax nañu foofu yi ci xunti ni ñetti fan ba waa Quraysh seet seet seet ba ja ba jeex ba jeexal seen i pexe ñetti fan yëpp ñu ngi foofu ba seen i pexe jeex ci seet léegi ñaari gileem ya nga xam ne moom la Abubakar tànnoon pour war koo tukkee ñu indil leen ko foofu yi ci xunti bi léegi nag ki nga xamante ne mooy gidd bi leen di yóbbu jaaral leen ci yoon woo xam ne bokkuteeg wiñ leen mën a jaaree pour dem Madina ndax bu doon wenn yoon wi ñu jaar dem Madina sax xaj nañu ko topp ba def ko waaye comme kooku xam na suuf si dafa jaar ci beneen yoon woo xam ne ku jugoon jëmmat ne doj jaar mu mën di wéete di wéete ba ba ni muy àgg kon gàddaay gi kon mi ngi doon ci weeru rabi al awal gannaaw fukki at ak ñett ci nubu woote ginnaaw bu ko yàlla yónnee ginnaaw bu ko yàlla yónnee ba mat fukki at ak ñett ci la gàddaay moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam jamono boobu mi ngi toll ci juróom fukki at ak ñett bokk na ci ñi amoon xeneen teef ci kado boobu ba jóg di topp yonente bi ku ñuy wax Suraqa ibnu Malik ibnu Jaas benn waaye ko wax ni ko gis naa ñetti nit ñu jëm booru Yasra donc ko benn waaye waxee Suraqa dafa doon ku am kattan ku dëgër la woon kuñ xamoon la ci ak njàmbaare mu daal di sol mbubbum konam te mooy mbubbum xare mu sol ko kenn yëgu ko nag ngir li mu bëgg mooy gaaw dem ray ko indi bopp bi ma téeméer gi yooyu mën jële daal di war aw fasam daal di jóg nag di dàq ñett ni ñi ñu ko wax ngir man caa fekk Muhammad ba ba muy ba ndax mu mën a am ndax mu mën a jot ci neexal boobu bi muy ñëw Abubakar seen benn gawar boo xam ni dafa yor ngànnaay bu mat sëkk di leen jege loolu jiitloo ko loolu mu ah mu yonte bi li muy tam loolu na ab gawar boo xam ne daa mel ñu lay tax ñu lay topp si waaye yonte bi gëstu ko sax mi ngi dox doxee nu ku ku xelam xel mu dal ni daal lenn luy nuru tiitaange sax fi mu jëm muy dox ànd ak xel mu dal fu mu toll rek muy ñaan fu mu toll muy jàng alquran moom yenn sens ñaan di jàng alquran waaye di dox dox bu dal nag maa amul tiitaange amul njàq. gis nga gën a taral ab doxam jëm si ci ñoom fas wi daanu bi fas wi daanoo fakkitalu daanu moom ci jëm bopp mu daanu moom su raax bi mu daanoo daal di jugaat waraat bëgg leen a dab bi mu demee ba jubaat leen fas wi daanu tarfat tar tar tarxiis daanu bi mu bi mu tarxiisee tànki kanam yi dem na ba xaw a xaw a xaw a mel ni lu lu mu ci kii dem na ba ba tarxiis ba bay bay bëgg a àgg sax daal koy daane fu sore sore ba mu beneen moo ko moo ko ngànnaayam moom moom moom sara foofu nag la gaaf loo la gisee nag li moom gaaf la ci moom gis na ne boobu dañuy sàkk lu ko am te jafe-jafe mën na ko ñetti kër ca foofa la la la yàlla tàbbali ci am xelam ni Muhammad mii de mbiram dana kawe te dana gañe ñi muy ñi muy ñi muy ñi muy seqal aw werante mu daal di sàkku ci mu ci yonente bi sama son ne ko damaa bëgg nga bindal ma téere kóolute ci ni léegi du ma am problème te dinaa la bàyyi nga am sa kóolute ci bopp waaye nag léegi ma bañ a am problème sama diggante yow may itam yonente bi digal la Amir ibnu Fuhayra moom mu bindal ko téere boobu mu jël ko daal di dellu bu ba mu delloo nag képp ku mu gis nga jóg ni da ngay wëri Muhammad da lay wax ni la jóg nga ci sonn ndax ñooñu nangam nangam wa wax la loo xam daal da da lay wëlbatiku loo loolu du la sawar loo si moom ci noonu la doxee moom suraaxa moom it doon topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag bi mu demee ba am lu ko leer te ni yonente bi àgg na yasri ba suraaxa daal di tàmbalee nettali nit ñi li xew digganteem ak yonente bi toppi gi mu ko doon toppi ak lam gis ak na mu seqeeg moom leer ko mu may ko kóolute jëmmi ko comme bon problème du seq noonu la yonente bi demee ba àgg fa ñuy wax xubba bi muy àgg xubba nag fekk ne waa Madina ñi ko doon séntu waa yasri ba dégg nañ ci dégg yi ñu ni yonente bi gàddaay ni ñu ngi jëm si ci ñoom ñu mujj saa bu xëyee dañuy dem ci tundi Madina yi di ko fa xaar ba naaj bi tàng jër bañ xam ne ak siwut ñu delluwaat ci seen i kër yonente bi am na ci diggante Makka ak Madina lu toll ci juróom-ñetti fan ci jamono yi mbooye mu tàng nag noonu ñu demee ba àgg fa ñuy wax xubbaa xubbaa nag digganteem ak Madina mi ngi toll ci juróom-benn mil juróom-benn mil mil xam ngeen ne newoon naa leen am na ñu wax ni moo kilomètre léegi yi ñoo tolloo am na ni mil moo sute tuuti kilomètre waaye daal ci digg-digg yooyu daal lay toll juróom benn mil daal moo dox diggante xubbaa ak Yasriba ansaar yi dañ daan def saa bu ñu xëyee mbooloo danañ jóg dem di ko gasandu ji yor seen i ngànnaay ngir di ko aar bëgg bu fekkee am na benn yoon bu ko bëgg a dogale ci diggante bi ñoom nañ ko aar ci seen ngànnaay yi loolu yëpp lu ñu baaxoon def na ko jëkk yonente bi noonu la demee ba wàcc ci bani amr ibn awf am na fa fukki fan ak nangam ci biir biir boobu mu am foofu yi ci la sos jàkk yi ñu jëkk tabax ci islam ñu di ko xamee masjidu xubba xubba jooji ci bi yonente bi accès foofu yi fukki fan ak nangam yooyu mu fi am ci la sos jàkk jooju muy jàkk ji ñu jëkk tabax ci diini islam muy masjidu xubba jàkka jooju la alquran wàcce ab aaya di ko junj ni la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fii fiihi rijaalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin bañ koy tabax it yonente bi moo saxaaba yi dafa ànd ak ñoom di liggéey ci liggéey bi ngir jaxasu seen biir bay kenn ci ñoom pour won ngeen aw yoon yonente bi jóge xubbaa bisu ajjuma la fa jógee jëm Yasriba ñi nga xamante ne ñooy ansaar yi ko doon teeru si foofu yi ñu ngi ko wër bi jant bi jàngat bi ko mi ngi nekk ci dëkku bani Saalim ibn Awf ci wenn xur wu ñuy wax xuru Ranwanaa xuru Ranwanaa fii la ko jant bi jàngat bi ko mooy bi tisbaar bi daal foofu la ko fekk foofu mu julli fi ajju moom moom yonente bi sallam xutba fa xutba bii ñuy bëgg a nettali alhamdulilah maa ngi sant yàlla ahmaduhu wa astainuhu wa astaghfiruhu wa astahdihi mooy maa ngi sant yàlla di sàkku ci moom ndimbal di ko jéggalu di sàkku mu jubal ma di ko gëm te duma ko weddi di noonu it képp ku ko weddi di seere ni yàlla rek i buur moom képp kenn bokkut ak moom buur bi di seere yit ne Muhammad ab jaamam la ndawam la lu mu yónni yàlla moo ko yónni ak jub ak diine dëgg akuk leer ak waaraate ci diir bu ab yonente amut mu yónni ko ko ci jamono yu xam-xam néewe ak réer bari lool ci nit ñi bis liñ ci jege lool ñu leen nag man yuta illaha wa rasulahu faqad rasad ku topp yàlla akub yonenteem day jub na waaye ku leen mooy nag réer na ëppal na te réer na réer bu sore sore mu leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla ndax ndax li li gën ci lu ab jullit dénkub jullit day mooy mooy mu soññi ko ci mbiri àlaaxira ak digal ko ak ragal yàlla ni leen na ngeen wattu li leen yàlla di wattandikuloo ci jëmmi bopp mu ngi koy wattu nee na leen nee na leen ni ngeen di wattoo li leen yàlla di wattandikoo ci jëmmi bopp nag dara gënu ci ak laa bii rente ci seen biir dara gënu ci sikar ni leen ragal yàlla day ku ko jëfandikoo ak ragal yàlla ku ko jëfandikoo ànd ak tiitaange akuk ragal boroomam mooy ndimbal li gën ci ndimbal lu yàlla dimbale nit ki mooy ndimbal li gën a rëy ci lu ngeen di sàkkoo mbirum adduna ak mbirum àlaxira ni leen képp koo xam ni defar na digganteem ak yàlla la war digganteem ak yàlla ci ay mbir ku ko defar yàlla dana yéwénal ay mbiram ci biir ak ci bitti te it lu yéwénal boobu mu yéwénal digganteem ak boroom dana doon aw turam mu yëkkatiku fii ci addunaam dana doon denc buñ ko dencal ci àlaxira it ci waxtu wa nga xam ne nit ki dana ittewoo lool lu mu fa lu mu fa yóbbuwoon mu jiitu ko fa waaye nag lu dul lii ma leen wax muy ragal yàlla googu de ku ko fa fekk da nga ngéejoo woon ne ak neexoon sama diggante tey doon biir sore sore sore mu leen yàlla mi ngi leen di wattandiku loo boppam ku am yërmande la nag ci ay jaam yàlla mooy ki nga xam ni ay wax dëggal na ay waxam teewal na ab dëelam te li muy dëele dara du ko soppi maa yubaddalul xawlu ladayya wa maa ana bi tallaami lil abid yàlla mooy ay wax kenn ko sosee fii man te duma ab tooñkat na ngeen ragal yàlla ci seen adduna ak seen alaxira ci biir ak ci bitti ndax ku ragal yàlla day yàlla dana la faral say bakkaar dana la yëkkati réyal sa yoon ku ragal yàlla day taxee na taxee gu màgg mun leen ragal yàlla day dana fekk sànjab yàlla dana fekk mbugalum yàlla dana fekk merum yàlla ragal yàlla dana leexal kanam yi ëllëg dana gërëm loo yàlla dana yëkkati ay daraja mu ni leen jël leen seen cër te bu leen sàggan ci wàllu yàlla li leen yàlla xamal ci ab téere muy alxaan ngeen koy jëfandikoo fi mu leen sóob ci aw yoon na ngeen ci soobu na ngeen loolu yi yàlla daf ko andi ngir xam ñi wax dëgg ak ñiy tam ni yàlla raf ni leen yàlla dafa rafetale jëm ci yéen nag na ngeen ko rafetale jëm ci jëm ci moom yéen itam te noonu noonu ay noonam te jihaad ci yàlla dëgg dëgg jihaad ndax moo leen tànn tudde leen ay jullit li yahlika man halaka an bayina wa yaxya man xayya an bayina kuy dee dee ci ginnaaw firnde kuy dund it dund ci ginnaaw firnde wala quwata illa billah ne leen na ngeen bari nag tudd yàlla tey jëf ngir lay ngir la ca ginnaaw dee ndax ku defar digganteem ak yàlla yàlla dana defar digganteem ak nit ñi ndax la ko waral mooy yàlla mooy àtte nit ñi waaye nit ñi duñu àtte yàlla moom moom ci nit ñi dara waaye nit ñi moomu ci yàlla dara wala xuwata illa billahi al aliy al azim kon loolu mooy xutba bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam defoon ca ca xutba kon foofu mënees na fee taxaw ndax loolu yi ñu weesu mooy marxala makka fi yonent bi jaar ci ñu tàmbale ko ca juddu ga tàmbale ko ci tàmbali boote bi tàmbale ko ci bundu xataal yi ñu ko doon bundu xataal ak ni ñu doon bundu xataal ay saxaabam yu ko jëkk gëm digle gi ñu digle woon ñu gàddaay dem Éthiopie dem ko ñu dem bu jëkk ak dem ñaareel ga ak coono yi mu daj ba ni mu amee benn benn cànkaarloo yu ko gëm yu dëkk Madina ba ni mu dégg ay saxaabam ñu jógee fii dem Madina ak ni mu gàddaay dem Madina kon bu beneen yoonee tàmbali dund ni mu doon dundee ci Madina moom yonente bi sama som kon moom lañuy indi bu beneenee bu ñu weesaloo it bu beneenee dañ leen indi jàngatal tomb yi nga xam ni bi yonente bi juddoo ba ni mu agsee fii li ñu ci mën a déggee ak li ñu ci mën a jàngate ngir jullit bi mën ko def royteef yooyu yëpp bu soobee yàlla danañ ko def ay tomb waxtaane ko yéen yàlla defal ak dégg ak topp ak jëriñ wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh